Amet Amar war na am lu ko metti lool fa mu tëdd ñetti weer rek ginnaaw bi mu fàttoo coow daal di juddu ci njaboot gi mu fi bàyyi ak entreprise am bi di NMA Sanders ñaari soxnaam yi amiloom Lom ak Thiané Ba nekk ci ak gitangaas bu metti ba yóbbonte sax ci yoon Ahmed Amar nekkoon jàmbaar bu ràññeeku loolu ci wàllum liggéey fii ci Sénégal loolu taxoon sax ba entreprise am bii di NMA Sanders ràññeeku woon lool ci réew mi ndax liggéey bu am solo bi nga xamante ni kii di Ahmed Amar defoon na ko ñu ko doon sax dàkkantele capitaine d'industrie fii ci Sénégal ak gëm boppam ak nangoon liggéeyam taxoon sax ba mu jënd nag di ab entreprise boo xamante ni concurrent la woon Ahmed Amar nekkoon nit koo xamante ni kenn mësu ko dégg ci benn coow moom Ameth Amar loolu sax taxoon mu dem ba bokkoon ci ñi nga xamante ni bokk nañ ci ñi ëpp xaalis ci fii ci réew mi laata muy faatu ci weeru avril foofee ca Paris waaye li nemmeeku bi mu faatoog léegi coow lu bari juddu na dox ci diggante soxnaam yi ak entreprise bi nga xamante ni bàyyi na ko fii di NMA Sanders lu jëm ci héritage am kii di soxnaam su ndaw sim fi bàyyi di Amy Lom moom daal dafa gis ni rek kii di Thiané Ba warul laal dala ci alal ji warul laal dara ci ndonnoog Amet Amar ndax balaa njëm si yàlla Amet Amar di fàttu dañoo tàggoo woon ñoom ñaar ba tax mu daat koy yóbbu foofee ca tribunal waaye li ñuul si soow mi rek mooy doom yu mag yi nga xamante ni Sango Caneba moom la ko amal mu nekkoon aawam li jëm ci NMA Sanders nag emploi yi dañ doon xaar falu Claude Diop moom mi nga xamante ni moo nekkoon directeur commercial te mujj sax nekk directeur adjoint bu Déthié Fall moom mi nekk directeur industriel bi waaye mu mel ni ak Baara Yego moo am ci biir ba ñu fal te Ndate Bayo Ndaw mi nga xamante ni ci atum 2017 rek la fa ñëw moom sax moo nekkoon directeur bu Sinayor jamono ji nag li ñëpp di laaj mooy ndax famille bi dinañ déggoowaat ba indi jàmm seen diggante ndax ca Ndédé Boyo Ndao dina àggale liggéey bi nga xamee dénk nañ ko li ci kanam raw li bët lii dal la Olof Njaay di wax naan ku dee yow yaa perte